doon mat koo xam ne nii suuf sañ ko joxoon ca kawlax sax ba mu si jotee dafa gëstu laaj ndax ba mu defee la ko war ndax lew na ma ñu ne ko lew na ma ci lañ wax na ci lañ tuddee baatu lew nañu seen lu lew rek moo ko yoonam lu neex yàlla rek la doon gëstu lépp lu naqadi yàlla daf ko doon moytu de kooku moo jur mooy Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu kooku moo jur ñoom jur ci ay doom nga xam ne ñoom ñëpp ay jant lañ ñoom ñëpp ay biddiw lañ mooy ñoo def ku nekk nag nekk di jënt jënt yi ñoo nekk di waaw leeru leer yi de kooku mooy moom alhamdulilah radiyallahu anhu mooy bàyyam si Zahir yaayam mooy Sayda Aysatu Janqa nga xam ne moom it ñu ngi ko jur ci xam-xam jur ko ci leer. jur ko ci topp ndigalu jëkkëram mos ta moom ci lenn loo xam ne nii waaw lu indi bànneexi bakkani boppam la de radiyallahu anha moom it géntoon na weer wi daanu ci kawam de loolu doon tegtal juddu Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ñu ko nettalee mama la Ibrahim mu ne ko xam naa ko waaye nappil buñ ko nettali maanaam Cheikh Serigne Mbaye Niass euh, Cheikh Sir Ali Cissé waxul xadrati nettal na ci muqaddimatu Kashiful Baas na ne déggee na ci koo xam ne ni ku mu wóolu la mooy Cheikh Serigne Mbaye nettali na ko loolu la ne maamala yob laay ko amoon yaakaar ci moom la laaj na bés yaayam ne ko suñu doom ñi ndax am nga yaakaar ci moom mu ne ko waaw mu ne ko man tamit am naa yaakaar ci moom de yàlla yàlla dëggal yaakaar yi ci ñun ak ci njaboot gi ak ci soppe yi de kooku mooy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu bi mu juddoo ci Taïba nekk koo xam ne nii leeral na àddina leeral na gox yi àddina leeral na xol yi leeral na dënn yi